Diem Hannibal Hannibal Diem jot naa ci ay xibaar ni euh, selon maître Moussa Sarr euh, que ni euh, gars yi ñu ngi koy commencé waat di visiter ay mbokkam mën nañ ko gis ay ay famille am également mën nañ ko gis jot nañ léegi ci xibaar bi ci maître Moussa Sarr mais Pa Moussa yaa ngi wax léegi tout à l'heure que ni bu fekkee que ni nit ki dafa nekk grève de la faim ba bañ soins yi buñ ko assisté wul ba mu génnaat non assistance en une personne en danger la loolu yaa ngi koy wax léegi mais nit ki l ma faj nit ki anam également nan nga mën a def pour pour pour mën ko faj par la force. non ce n'est pas une. ah euh, dara dal ko est-ce que duñ la ko duñ la ko jiiñ quand même. ce n'est pas une épreuve de force Marie xam nga. Mm-hmm. Euh, parfois di nga gis ci yenn type d'infraction yi nécessité consentement ou non. Mm-hmm. par exemple le cas du viol. Euh, bu ñu ne acte de pénétration sans consentement la. Mm-hmm. nga fekk benn cas boo xamante ne la personne elle a 16 ans ou 17 ans mais moom moo accepté moom moo consentir. dañ naan la consentement boobu valable parce que nit ki consentir mënul amul capacité mm-hmm. de consentir mm-hmm. c'est presque la même chose ki nga xam ne dafa feebar mm-hmm. moom amul capacité de consentir ou non fekkee bañ mais dafa feebar bañ bu bañ bëgg bu mu bëgg konteetul da nga ko war a faj par force parce que consentement wu moom moo amatul intégrité xam nga un consentement doit être libre et éclairé un consentement a être integre intégrité consentement boobu moo amul parce que ki nga xamante ne feebar na ba loof na ba mënatul dara kooku waawam ak déetam lanu yemale amul benn valeur juridique faj ko day doon un impératif parce que si euh, dans ce cas où <laughs> yenn saa yi ngay gis koo xamante ne euh, xaru du du du infraction parce que l'auteur du crime deel mm-hmm. mais est-ce que boo ko mënee empêcher doo ko empêcher mais ñu ngi naan euh, grève de la faim ñu bëri ñu ngi naan ku ko def euh, da nga xaru non xaru balaa nga ko wax nit ki dee fii kenn deewagu fi ñëpp a ngi dund. nañ leen faj. loolu moom mooy la réalité je la la société civile ñu ngi ñu ngi inquiétude par rapport ak mm. euh, kaaw ñi nga xam ne ñu ngi amal grève de la faim ku mel ni Cheikh Bara Ndiaye. Cheikh Bara par exemple parce que Cheikh Cheikh Cheikh Bara euh, xam nga li ci dooy waar mooy euh, procureur daf ko jël chargé ko su des faits criminels. Mm-hmm. juge d'instruction nga xamante ne moom mooy def instruction bi di enquêter à charge et à décharge. moom ci biir euh, enquête am boobu mu gis ne Cheikh Bara Ndiaye mii mën nañ koo bàyyi mu ñibbi. Hmm. ba jël ay téléphone delloo ko famille kon kay kooku ay la yëwén euh, moom mi nga xam ne enquête moo gën a approfondi et c'est un magistrat du siège. Hmm. kooku bu demee ba ne nañ ko bàyyi c'est parce que il a les garanties que ni nañ ko bàyyi. mais euh, liberté provisoire ñu ngi koy jox ki nga xamante ne joxe na tout les garanties de représentativité Cheikh Bara Ndiaye ñëpp a ngi koy gis sur Walfadjri ak sur l'autre euh, plateforme muy wax mm-hmm. am déet Cheikh Bara Ndiaye euh, sëriñ la yore yi taalibe Cheikh Bara Ndiaye c'est une personalité publique ci réew mi mm-hmm. Cheikh Bara Ndiaye bu dee dañ ne ña nga xamante ne ñooñu leen jàpp ci xaw ma la ñu def BRT ñooñ Cheikh Bara Ndiaye moom moo leen yónni la meilleure façon de savoir ça mooy ñu xool téléphone Cheikh Bara est-ce que daa wax ak ñooñu. juge d'instruction moo exploité téléphone Cheikh baara delloo ko famille mhm. kon kay dara neewu ci am déet. Mhm. si euh, Juan Branco peut bénéficier d'une garantie de représentativité ba nekk ci contrôle judiciaire. Mhm. <laughs> mais bokkul Juan Branco non Juan Branco dañ non non doucement rek juge bi moom jugewul tubaab ak nit ku ñuul sinon ce serait très grave bu dee Juan tubaab la moo tax ñu bàyyi ko ku ñuul ki ñu jàpp ko li nga wax de de presse peu peu importe xaw ma xaw ma xaw ma li xew mais lii euh, leer te wóor mooy mm-hmm. le juge d'instruction dafa euh, inculpé Juan placé ko sous contrôle judiciaire su contrôle judiciaire nag bu dee Juan moom moo mën a représenter euh, garanti de représentativité ba am contrôle judiciaire mm-hmm. ak waxtuma laa Cheikh Bara Ndiaye parce que Cheikh Bara Ndiaye ne naa la ci réew mi la dëkk mm-hmm. ku ko woo mu wuyu la et c'est pourquoi je ne comprends même pas l'arrestation mm-hmm. musclée dont il est victime et que muy nduróog acharnement wala ku ku ñu bëgg a ci arrestation boobu noonu parce que man jàpp na xam naa ne Cheikh Bara boo ko mu ñëw c'est quelqu'un de très responsable que bokk naa ci ñi nga xamante ne Cheikh baara balaa ma wax dina ma woo ñu waxtaan ci li ñuy li muy wax loi lii la wax nangam pour te dire l'étendue de responsabilité ak volonté am pour respecter les lois et réglement qui sont dans ce pays là. donc kon Cheikh Bara Ndiaye ci biir waxam amul lenn lu ci nit ñaañ parce que euh, amul lenn lu ñu koy toppee ci waxam. Mhm. dañ ne am na ay booy yu jógee xaw ma fan. bañ leen enquêté nee nañ Cheikh Bara nangam nangam mais ñooñu noonu nañu xool est-ce qu'il y a eu des échanges téléphoniques avec téléphone Cheikh Bara téléphone Cheikh Bara wax na de. lu euh, lu ni am na ay échange par rapport ak ñi nga xam ne nekk nag yow tamit téléphone Cheikh Bara dañ koo delloo ay mbokkam. xanaa kay bu téléphone yi. moo waral kon ñu def ko jox ah, mooy gisuñu a teg ñu tax kon ñu bàyyiwaat ko ba tey ci kaso gi. voilà donc kon moom mooy enquêter à charge et kooku moo ko jox liberté provisoire ki nga xamante ne moom a charge kese la. moom moo bañ muy procureur. ok juge d'instruction mayal na ko lii. procureur xañ ko ko. mais bu doon téléphone am daa am lu mu génne duñ jël téléphone bi delloo ko. ok bu doon téléphone bi daa am lu mu génne. Mhm. kenn du ko may liberté provisoire man jàpp naa si le juge d'instruction donne à Cheikh Bara la liberté provisoire. Mhm. jàpp naa ne c'est parce qu'il le mérite. mais malheureusement procureur moom bu defee appel rek da ngay toog. Mhm. mais Bara amul kenn ku gën a yey ci Cheikh baara Ndiaye. Mhm. mu recouvrir la liberté d'autant plus que li waral ñu toog bañ lekk bañ naan mooy xam-xam am njëkkin ne lii ñu leen teg injustice la. defuñu ko ok voilà ok léegi par rapport ak grève de la faim bu Ousmane Sonko version yi bëri ñu ngi naan peut-être dañu bañ waa këram indi ko lekk bu ñëwee du ci accéder mais est-ce ku ñu téye sa ay waa kër am nañu droit ñu indi la lekk wala est-ce que la ko encadré déedéet euh, ki nga xamante ne moom euh, mu ngi sous les liens de détention effectivement am nit mën nañ ko indi lekk chaque jour nga gis ko boo demee Rebeuss léegi fekk fa bool yi mhm. ku ci nekk ku am mhm. euh, li nga xamante ne moom la soxla donc loolu waa interdire ko. maintenant effectivement tu as raison de dire que ni version yu bëri na ñii nee nañ mu ngi ci grève de faim am na ñu ma euh, xam ñu ko jege ñu ne bañul lekk mais lekk bi nekk foofu la bañ. am na ci euh, ay spécialistes ku ci mel ni docteur Babacar Niang je lui personnellement. est-ce que lii mën na nekk mu ne moom li mu xam ci wàllu médecine nit mënul toog euh, combien de jours. 17 presque ça fait 14 15 jours ah, médicalement mënul nekk donc kon euh, jàpp naa ne parce que surtout sur question sanitaire y a des gens qui disent daa am lii daa am lee mais man personnellement je ne crois dans ces choses là parce que c'est très sensible mhm. jàpp naa ne secret médical nit ki moom mënuma fay yegg mais en tout état de cause grève na grèvewul li may ñaan mooy yëpp ñi nga xamante ne dañoo nekk en grève de faim pour ma dañ ko war a arrêter parce que le combat contre ce système là. Mhm. vous voyez. Mhm. le système ça ne concerne pas seulement euh, Benno Bokk Yaakaar du rek euh, les les les chapelles politiques. Mhm. le système est beaucoup plus large que ça. et qui a ancré euh, qui est ancré ci biir Sénégal. foog naa ne jàpp naa ne li ñu toll ci précarité ñun du Sénégal rek un peu partout en Afrique. li ñun fi ñu nekk ci précarité ci pauvreté du dara lu ko yóbbee lu dul un système poreux mais am ses racines yoo xamante ne ça remonte bien avant l'indépendance kon loolu pour nga dijjati ko nga di problème la tu as besoin de force tu as besoin de énergie tu as besoin de t'alimenter bien pour avoir la force de continuer combat boobu nga xamante ne man jàpp naa ne moom mooy seul issue bi nga xamante ne moom moo mën a génne Afrique ci su développement ce n'est il ne s'agit pas de démocratie wala la volonté populaire mën nga fi gis ay président un peu partout en Afrique mën nañ ñu ñëw noot seen askan ñu ñëw yëpp seen askan c'est l'engagement et la détermination des jeunes là je les adore ah. j'aime le capitaine Traoré. waaw oui dinañ ci ñëw léegi euh, beneen biit mooy dégg naa Sadekh Top sa soir muy wax que ne Ousmane Sonko dañ ko mën génnee ci fu nekk yóbbu ko waat prison est-ce que dans ces états aussi. loolu je ne comprends ko fi nga xam ne moo di sa dikotaan. mais en principe a fait je pense. non je mais est-ce que dans ces conditions serait quasiment dina yomb. je parle du principe il est à l'hôpital principal parce qu'il est malade su ñu ko euh, fajee ba jàpp ne reprendre na son état sanitaire dañ koy delloowaat loolu moom mooy kii euh, parce que waaw ñoom dañ ko dañ ko arrêté lu tax ñu yóbbu ko ci hôpital bi c'est pour une chose ponctuelle mhm. il pense qu'il est malade alors donc bu ñu ko yóbbee ba faj ko la logique voudrait que dañu delluwaat. mais ku ñu wax ay quatorzième jour de grève de la faim. après nit comme li comme li kii wax rek laa rejoindre nit boo xamante dañ la teg dañ la teg loxo. Euh, euh, nga feebar ñu faj la boo paree kay da ngay delluwaat fa nga nekkoon ba keroog ñu lay mën a jugé wala ñu mën a laa libéré c'est-à-dire topp lu mu wax mooy. que ne Ousmane Sonko dañ ko bëggoon a delloo fi nga xamante ni rek mooy kaso Sébikotane te ak condition yoo xamante ni euh, kii di Ousmane Sonko mënul rejoindre fi nga xamante ni mooy euh, ci kaso c'est-à-dire son état il veut dire que son état de santé n'est pas compatible avec l'univers carcéral bon voilà donc et aussi un tweet euh, de aussi mm-hmm. qui dit à peu la même chose mm-hmm. que situation sanitaire de Ousmane Sonko serait catastrophique mais juste dans le même sens Euh, si Juan Branco peut bénéficier d'une d'un contrôle judiciaire mm-hmm. mais amul ku ci gën a yey ko Ousmane Sonko il est maire mm-hmm. même si euh, sur le papier on a déchiré euh, le de Pastef il reste euh, leader de l'acteur euh, de la scène politique sénégalaise mm-hmm. des centaines de milliers de Sénégalais placés sa confiance gëm ne kii moom moo mën a génne réew mi ci euh, yenn difficultés yi alors au vu et au su de ça je pense que ni Ousmane Sonko au-delà nonobstant euh, yenn yenn yenn accusations yi qui frisent le ridicule donne toutes les garanties. Mm-hmm. mais aussi euh, je ne pense pas que Ousmane Sonko war compromettre en quoi que ce soit la paix et la stabilité. Mm-hmm. parce que euh, depuis qu'il est entré en politique man boog avant. Euh, ces carnages judiciaires euh, de mœurs là. Mm -hmm. Ousmane Sonko a posé sur le mm, euh, terrain politique ci espace politique bi sur la table Ousmane Sonko a posé des idées mhm. ah oui euh, en 2019 avant élection yi au moins def na fi lu fi mësta am imposer à la classe politique un débat technique haute place de l'obélisque mbooloo wër ko journalistes yi gën a xarañ ci réew mi ñëw wër ko di ko poser question muy tontu ci vision bu mu am pour un Sénégal meilleur mhm. même s'il n'est pas d'accord avec la gestion du pétrole et du gaz il a écrit un livre chronique d'une spoliation buy dem élection il euh, met euh, sur la table un programme jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci donc kon incarnation wu refus incarnation wu euh, lutte contre ce système la je pense que Ousmane Sonko la la la la la am euh, avec courage et avec détermination donc kon jàpp naa ne lii nga xamante ne euh, moom moo ciy nekk yëpp. Mhm. Euh, lu wér te wóor moom mooy la place de Ousmane Sonko n'est pas en prison. ok maintenant quelle stratégie pour mettre fin à ça est-ce que dañ ko def pour ñu. def stratégie venant de qui waxtaan waaw devenant pour que par rapport ak grève de la faim beeg ñi jàpp. non cest xam nga stratégie man. du ma je ne dirais pas que Ousmane def telle ou stratégie. ñi tooñ Ousmane Sonko nañ bàyyi tooñ rek. Mm. aussi lu tax nga ne dañ ko tooñ kan moo ko tooñ moom moo moo arraché téléphone benn nit looloo ko indi. ak ci li nga xamante ne moom la nekkoon. voilà tu penses que Mame Marie Ousmane Sonko am na problème mu téléphone bay sàcc téléphone. parce que euh, infraction pour mu am. Mm. il faut que trois heures doucement rek doucement rek. pour que infraction am il faut la réunion de trois éléments un élément matériel maanaam nit ki est que def na oui def na. Mm-hmm. un élément légal est-ce que lii mu def loi da koy tere oui loi da koy tere article trois cent soixante six code pénal mm. un élément intentionnel c'est-à-dire lu ñu naan l'intention coupable est-ce que Ousmane Sonko a eu intention de voler un téléphone et apparemment ce téléphone-là s'agissait d'un techno ou itel quelque chose du genre mais mu arraché aussi. mais comme sa téléphone bii la mel loolu ça ne coûte même pas plus de cent si <laughs> clic du doigt trois cent trois milliards millions taxaw. il a besoin de voler quoi que ce soit et que euh, d'accord vol pour vol boo ñëwee fekk nit di ko filmer à son insu la loi sur la protection des données personnelles. Euh, kii la ënt sax euh, homme de tenue la moo tax. peut-être d'après la communication du procureur ku doon dem yoonam la paan foofu. dafa paan way c'est ce qu'il a dit. donc il n'était la personne en question n'était pas dans l'exercice de ses fonctions si on en croit euh, au communiqué du procureur. alors que vol boobu noonu. qui a fait mais même tout monde ça, euh, ça. est-ce que jàppoon ne Sonko dafa waroon a maytu yu bëree bëree bëri ba ba di seetaan ñu lay filmer di dem sa yoon man bu doon man la dama naan la supprimer léegi léegi léegi léegi yow yow doo Ousmane Sonko non jarul non yow Pape Moussa nga Ousmane Sonko bokkul ak la loi ne distingue pas Ousmane Sonko Pape Moussa Bamba la loi dafa ne Sénégal yëpp ñoo tolloo devant la loi loolu la Sénégal. waaw c'est vrai mais yow Pape Moussa xam nga yow benn benn plainte laa mos a gis ci yow te xam naa dina ci dikk ci kanam te yow kenn toppewu la viol kenn toppewu la dara bëggoo réew mi je ah, pense. bëggoo yu nekk président mais Ousmane Sonko ak li nga xamante moom lay incarné. voilà ah. peut-être que si j'avais l'aura de Ousmane Sonko dinañ ma jiñ viol. ça veut dire li nga wax ça veut dire ni Ousmane Sonko dañ koy jiiñ lii mu ñu ko parce que li tax nga ne usman Sonko Ousmane Sonko la Pa Moussa Pa Moussa la. Ah. li ñu différencier mooy. Mhm. Ousmane Sonko à la capacité. Euh, élection taxaw le 25 février 2024 ñuy wàññi xob ba 18h tëj bureau de vote yi commencé euh, compter balaa 22h coow li jeex c' est ça la particularité de Ousmane Sonko. alors est ce que ku nit ku am euh, boobu prérogative est ce que nit ku am boobu qualité dafa war a doon impérativement ñu dresser benn série de d' agressions judiciaires contre mais pas du tout <laughs> donc kon effectivement Ousmane Sonko la moom moo tax boo jëlee image am amul sañ-sañu nangu ko parce que moom Ousmane la tudd sant Sonko que ni bu yeggee ci yenn kii il faut inventé benn Adji Sarr bu ko jiiñ viol ak menace de mort te dara amu ci parce que moom Ousmane Sonko la mm-hmm. que ni dañu war a mën a jàppandi rek ne s'il arrache un téléphone pour extraire son image ses données personnelles que moom Ousmane la tudd sant Sonko rek bu ko defee da nga naan sàcc la te pourtant bu ko Pape defoon nga bàyyi ko vous vous rendez compte de ko defoon mën nañoo jàpp ni sàcc la mën nañoo euh, euh, a a <laughs> ah, yow yaa wax loolu de yow yaa wax ne yow nga nga moom Ousmane Sonko. waaw c' est yow Pape nga moom Ousmane Sonko waaw constitution du Sénégal nee na ñun Sénégalais Sonko mm.